asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi leen di delloob nuyoo waaye itam di leen nuyu ci turu sëriñ Alhaji Modou Ka mi nga xam ne moo fi wóotu sëriñ Moussa di ab xalifaam eh, di leen jox ab nuyoo bu bàyyikoo ci moom jëm ci sëriñ Amdi Modou mbenn mi nga xam ne moo fi nekkal as Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di leen ñaanal suñu borom yàggal leen fi loon te ànd te ànd mu ànd ko wér ba sumb ak naal yi nga xam ne bëgg nañ koo liggéeyal sëriñ bi lépp ñu àggale ko eh, nee na mi ngi jël ab nuyoo ak ziyaara jiital ko ci Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér moom mi nga xam ne moo joxe ndigal li jaare ko ci sëñ Amdi Modou Mbenda mu demee rek nam daan demee te mooy. ndigal lu jóge ci sëriñ bi ñëw ci Cheikh Ibra saa bu ndigal masaa jóge nag ci sëriñ bi ñëw ci Cheikh Ibra ndigal loola du laal suuf naka jekk gis nañ ko rek bu yàggut ci ndigal lim leen joxoon ci lu jafe loo xam ne jàppoon nañ ne warta mën a nekk te mooy kàmb e, e, tabax yi nga xam ne moo nekkoon ci gaar bi mu mujjoon àgg foo xam ne ay di fa loro ñu fay defub safaan te loolu dëppawut ak war may Tuubaa biñ ci amee jaaxle lool sëriñ bi xelam dajut kudut waa kër Cheikh Ibrahima mu jox leen ko loolu it mooy delloo battu ca ndaala rek mooy fori biir it ca ndey ja day mel ni loolu it la sëñ Muntaxa defaat ah, noonu ko sëriñ bi waxe nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi tabaarakallaahu loolu dafa mel ni sëriñ Muntaxa day xàmmee eh, ker ci biir lëndëm ndax kuy xool fi jamono toll ak xew-xew yi am kenn ku ne am nga ak jaaxle ndax gis nga loo musta gis jàppoon nga it ne lu ne mën naa am nit ña di ko roy ba mu des waa Touba. kon loolu yi nag nga xam ne am na ba mu sabab lii te mooy mu gis ne loolu kat mat naa safara mat naa faj xelam daju dara lu dul waa kër Cheikh kon delloo na baatu ba ca ndaal ndax waa kër Cheikh Ibra dafa am melo wuñ amee woo xam ne jamono jii nu toll ñu mel noonu rek ñoo ko mën a lijjanti te mooy ñoo xam ne defal nga def bàyyil nga bàyyi rek ca la tënku. waaye wax sa xalaat ji xew ak tënku ci xalaati jàmbur ak wàccal li nga gëm bàyyi li nga gëm te ñëw ci li ma gëm ak internet bi nga xam ne kenn ku ne mooy sa kilifa ci gone ndaw ñu mujj ñii ku leen di déglu dootoo am foo jofi dootoo am kilifa am kilifa goo tënku gu mat kilifa mu lay digal la ko tere rek mooy li mën a mu li mën a rawale ndaw ñi li ma rawa mën a musal jamono fii nu toll te ñu mel noonu rek ñoo ko mën a doxal jamono bii ñuy lijjanti marché beeg lëj-lëj bi ku ko ñu dul ñu mel noonu ñoo xam ne newuñ fa di déglu wax sa xalaat xalaati ay nit ak yi ñuy dugal ak yi ñuy ilxaa ci biir nit ñi waaye defal li defal ma lii nga jóg def ko rek dem toogaat ku mel noonu rek moo mën a lijjanti jëf kon ndokk bi mu leen ko joxaatee rafet nañ ci njot lool sëriñ bi nee na nag mi ngi koy ànd ak yéen ndax moom nee na fu suñ muntaxaa xool foofa la xool fu suñ xaa jublu it foofa la jublu kon mi ngi koy ànd ak yéen ci biir ak ci bitti ak ci xalaat ak ci yëg-yëg ak ci lépp ndax ci ndigal ngeen di dox li leen sëñ bi digal ngeen di def lim leen di tere ngeen di bàyyi te moom fësta yéene li fekk mi ngi fiy nekk ci ak taalibe rek la fës yéene sax noonu ko sëñ Moussa meloon dunde ko ak ak ak ak ak ak ñam fi bokkaloon nekkal sëriñ Tuubaa li ngeen defit nag lu am solo la bu leen neexoon man ngeen a jot ndigal li rek daal di wéy ca la ngeen di def waaye nii ngeen def muy musaawara muy diisoo te salaawa salaama suñu borom da koo digaloon wasaawirhum fil amri boo diisoo nag ba noppi fa isa ansamta fa tawakkal ala nga daal di nag wéy nag ci la nga war a def nga def ko mooy nii ngeen def bu ëllëgee bu kenn ah lii kat ñëwutoon ñëwuñu woon ci man bu njabootu kenn ne yëguma ko woon kon lépp lu waaye defati tam tam te dëppoowut ak li sëriñ bi digale digle fii ci dëkk bi na ko wóor ne kilifaam moom digalu ko ko àndu ca loolu moom leeral ngeen loolu nañ ci ci ci nii ngeen doxale kon noon koy ànd ak yéen dig te yu baree bari Cheikh Ibrahima moo ko fi jàngale moo fi xewal moo fi xewal yooyu nga gis ci marché bi ko sëñ Moussa defal yu baree bari moo ko fi indi moo tax ñu koy woowee Babul Mouridine kon daal ci gàttal diggante sëñ sëñ Moussa ak Cheikh moom lu gudd la loo xam ne moom ma nes na cee joxe misaal yu bari waaye lii ak cant la rek goo xam ne da ngeen a jógee ci seen kër ñëw ci seen kër sëñ bi daal nee mi ngi koy ànd ak yéen ci biir ak ci biti waaw incha allah di ñaan suñ bi suñ borom defal leen ci tawféexi sëriñ bi ak ak yu Seex Ibra ni ko sëñ bi bëggee rek yàlla na ngeen ci ndam am ndam lu kawe njort ci barke borom Tuubaa